dal leen ak jàmm man dey waarootu naa lii ma seen muy direeku di ñëw mosuma ko gis mosuma ko teg bët waaye xam naa ne bu yegsee fii réew mi tas waaw gis nga nag Sénégal moom yàqu na yaxeet li sénégalais yi di def ci réseaux sociaux yi daal dama ne luqi na ab bët ginnaaw site porno yi fi nekkoon ne fi xus ba ñëpp di ko coow ma ne léegi jamono ji ni rangu daal moo xew rangu <laughs> rangu laa leen wax de xolal ma animatrice Sen TV ba woon ma nga ca réseaux sociaux yi mel nu ko neex di def lu ko neex di wax lu ko neex moom mi nekkoon ab animatrice télé bu Sen TV moom daal daanaka jamono jii nii ma nga ca réseaux sociaux yi maanaam ca Instagram ba di fa jaayu ginnaaw colin gu ñàkk xorma gu mu yor dama ne ay photo ak ay vidéo lay faral di naan fang dàcc Instagram lu ne fang de kenn du ko jeex laaj bi ci sampukaay mooy lii ab cagatu la am déet bàyyee naa leen tontu bi chëtëtëtëtëtët soppeekoo ko gaaw moom animatrice ba woon dama ne dafa changé complètement na mu doon solo daf koo changé yaram ba sax daf koo changé fu mu toll nii ku ko xamoon bu njëkk boo ko xoolaatee léegi doo ko xàmmee teg ci nag nekk ak i vidéo yoo xamante ni daal man duma a ko gisal ko gis lu ne di ko xas di ko yàq lu ni xeme waaye koo gën a ràngati bu set daal mel ni ku leen di kokkali ko ciy tegaat na woon fa woon yokku cere dollu ñeex ab je m'en foutisme daal day dund maanaam faalewu leen ndax sax nee na daanaka xas yooyu ñu koy xas moom bàyyiwu ci xel te mi ngi wëral ni saa yu su dina indi yeneen i nataal ak yeneen i vidéo yu gën a doy waar yi nga xamante ne moom la jot a posté jamono ji nag li ñëpp di laaj mooy ndax moom rangu moom dafa bokk ci jigéen ñi nga xamante ne dañuy jaay seen oh baal ma noppi rek baal ma noppi nañu xool vidéo yi yéen seen jëmm bopp di ngeen tontul seen bopp jëre ngeen jëf